waaleykum salaamu Jean si maa ngi lay ziar. région de Thiès da bëri woon na ci studio bi tey. waaw noonu sax mooy mooy mooy li war ndax Thiès xam nga ni dafa am solo ndagaaru xat na yéen a ngay buuxante ji Thiès wuti parcelle ak yeneen. jërëjëf El Hadj Assane nooy ci xibaar yi. Georges Déthié Diop ñukoy koy jaajëfal ci subaak légui ngeen àndoon ak mom ci RFM matin xibaar yi euh, dina ci bokk li nga xamanteni moy ab laaj jëm ci mbiram mburu mi ndax boulanger yi duñ dem ci grève li waral laaj bi moy seen ak jaxlé jamono yeeg yokkute njëgum courant bi euh, président fédération boulanger Sénégal Amadou Gaye mom mu ngi gis sax ne ku wul boulanger yu bari euh, di boulangerie dinañu dal di tecc ñu ngi te wéy di sakku li nga xamanteni moy ak tan ci seenaw nekkin ci liggéey bi stade olympique bu mbacké mom dal dinañ ko fa jëlé ci ndigalal ku tedd ki xalif général kulu murid Serigne Mountakha Bassirou Mbacké euh, ñi nga xamante ni ñooy Baye Fall yi daal nañ ko daaneel ndax ca wet ga danu fay taxawal ab euh, complexe islamique euh, ci weneen wàll it ku tedd ki fukk ci million baaxee na ko waa club Mbàkke ba fa lenn ci xibaar it jib na jëm ci tuumaal dirigeant yooyu club ne danoo daal di jël euh, million ya def seeni i poos campagne njaayum gerte gi euh, mu ngi jaar ci yoon ministre bi ñu denk mbay mi Moussa Baldé ko xamle donte am na ci ay ñaxtu jëm ci këri diw yenn yi donte ñu ngi song yenn point de collect yi moom jàpp na ne lépp ngi jaar ci yoon ci it euh, lu jëm ci semence yi amul tiitànge sport gi Malal Junior Diagne la ñu ci àndal wàllu culture Haj Ndate Diop yéenekaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye culture bi soxna ana Rocha wàllu yon lañuy tambalé tàmbalee xibaar yeeg ki nu njort ne moy ki faat soxna Fatoumata Matar Ndiaye mi nekkone vice-présidente euh, ci euh, conseil économique social environnemental dip sofëram tribunal grande instance ab Dakar, dina djublu ci mbiram ubité gi tay ji kon ci kanam chambre criminelle ñeel ab ñu fàtt ni mom Samba saw boobaak léegi mu ngi ci kaso bi li ne soxna si mom euh, di soxna Fatoumata Ndiaye ñu ko 19 novembre 2016. ak RFM yokute njëgu courant bi euh, dina bokk ci conférence de presse bu boulanger yu Sénégal di amal tey jile ci njital sen président Amadou Gaye euh, ñom ñu ngi daldi di rek yokute googee jëm ci courant bi conférence de presse bi ñetti waxtu lay doon tay ci dalop euh, sen ak mbotay ci Nord Foire ci Ndakaaru yene ni mbirit ak tolluwaay dinañ ko fa waxtane bokk na ci yokute payor yi ci privé gi ak ñom seeni revendication di tawat ak jàmbat boobaak léegi Euh, ci wàllu xibaar euh, bokk na ci it euh, ñeel ba tey yooyu boulanger ndaje mu dox seen digg ak ñii di collectif bii di ñoo lànk ñoo bañ ndaje mi nag ginnaaw si ñoom ñooñee di boulanger fas nañ yéene fekki leen ci ñaxtu ak taxawaay yi nu nas ci réew mi bokk na ca ñaawlu yokkute njëgu courant bi euh, ndaje mi démb la woon diggante kon boobu fédération boulanger Sénégal ak collectif ñoo lànk Abdoulaye Diop nga fa woon ngir RFM. kuréel gi ëmb boulanger yu Sénégal ne yokkuteb njëgub courant bi benn signification rek la am mooy daanub boulangerie yu bëri fédération bi doon daje ak collectif ñoo lànk ñoo bañ dàkku ñu sax amal ab grève Amadou Gaye njiital boobu boobule fédération. sagam collectif bi ñoo lànk ñoo ñëw gën ñoo expliqué moo tax ñun dañoo ànd ak ñoom si loolu bu ñu jëlee rek suñu secteur ñun mbur bi ni bu yokk bi amee danañ lor lu bëri ndaxte maa leen ko biral ni yokk bi su taxawee su yeeg ñetti weer plonge lu bëri dinañ tëj. pare ngeen ba par dem grève. non combat bi moom dañu dem ba jeex moom. incha mais il faut que ñu xamni ni suba lépp na leer. bi lay yokkuteeg njëgub courant mënon nañu ko moytandiku suñu sukkandikoo ci Mokhtar Sorang bokk ci front national de résistance. état bi dafa daan subventionné courant mu dem ba yegg ci 200 milliards yo xamni état bi fayu ko Senelec tey bu ko état bi fayoon sénégal fay kon sénégal du wax waxu yokk kon leneen la wax. li war li ñu war wax kay moy lutax état bi tollu ci diggante bo xamni mënu fay sénégal collectif ñoo lank di rafetlu li FNR bokk ci seen xex Omar Wali Zoumaro. front bi ak que ñoo lànk ñoo bokk gis-gis ñoo bokk doxalin ba ci liñ ñu tontu dal na suñu xel déjà ñu ngi ci biir xeex bi waaye aussi yëngu bu mag bi nga xam ne ñu ngi koy waajal fukki fan maanaam ajuma ji di ñëw am nañu ay engagement que ne front bi dana nekk ci suñu wet. lu jëm ci dox ñaxtu bi njàpp aljuma bi di ñëw yeneen ëpp ndaje dinañu ko amal diggante woy politique ak société civile bi fexe ba nguur gi dellu ginnaaw ci yokkuteeb njëgu courant bi ba tey mooy objectif bi. jërëjëf Abdoulaye Mbacké amatul stade olympique bay Fall yee ko jël teg fële ca wet ga euh, ñu fàttali ni ab complexe islamique la ñu fay tabax euh, ci fa mu nekkoon stade boobee euh, di complexe islamique boo xamante ni kon dinañ ko fa tabax tabax ci Mbacké ci teef ak ndigalal Serigne Mountakha Bassirou Mbacké leeral yi soxna ma Diop ci Mbacké ci mbégte mu rëy waaye itam pas-pas la bay Fall xëye woon ci stade Nelson Mandela toj ko ba mu mokk rumbax ci ndigal bu xalif général des mourites ginnaaw rek ba bërëb boobee dikkee ci ay loxoom Serigne Cheikh Fall teewaloon fa bay Fall yi waaye itam xalif général des mourites Serigne Touba Xaadimu rasoul fii la dëkkoon wax nañ ne fii la gënee jamono loo xam ne mën na 200 mètres jëlaat ko delluwaat ko ci loxo Serigne Touba jox ko Serigne Mountakha Serigne Touba Xaadimu rasoul yàlla nga fi yàlla yàggal te wéral Serigne Mountakha ci boppam nag daal di yebal ay ndaw ci Serigne Cheikh Jëmb jël liggéey bi teg ko ci loxoom ne ko dafa bëgg ñu dindi li fi nekkoon clôturer ko def kër Serigne Touba. ci kàddu représentant bu xalif bile wax rek ni dinañ fa def jàkka waaye itam école bu ñuy jàngee alxuraan ke ngir askan wi. day nekk kër gu alxuraan muy daara joo xam ne dañ fi jàngale alxuraan di kër Serigne Touba am ay am ay ay bâtiment ci biir am jàkk. sëriñ bi li fi li fi sëriñ bi jëlee nga xam ne day mel ni lu fi askan wépp defoon la waaye sëriñ bi li mu fiy defit askan wépp it la ko fi defalaat te it sëriñ bi li mu fiy def euh, xam-xam la fi samp xam-xam la fi taxawal Estat olympique bu Mbàkke amoon coow ci weerëb septembre bi ñu génn ba taxoon rek lépp luy sport ñu dakkaloon ka fa fi mu ni nii nag lépp daal ci yoon sous mu ngi nekk ci lo général des Mourides Marema Diop fi ci Touba RFM. Marema ginaaw si euh, néew ndampay ku tedd ci xibaar fukki million baaxee nako ko club olympique bu Mbàkke waaye Bobu, boobu ci euh, ñi nga ni wa association taxawu as askan dañu ne. Euh, waa euh, association ba euh, waa club ba dañoo jël koppar def seen i poche moo waral ñuy sàkku ñu delloo ko na mu gën a gaawee ñu déglu ca kenn ci boobu association taxawu sa askan ci Mbàkke di mbay si ak soxna Marème Diop. parce que ñun dañu jàpp ne tey ay kilifa bu ñu déplacé woo dem suufu Mbàkke ñoo tax ñuy dem parce que olympique bi quoi qu'on puisse dire c'est privé mais suuf si du privé. suuf si ñun ñoo ko moom askanu Mbàkke ñoo moom suuf si baay bi aussi jeex na trente ans la woon donc lu si mënti ruuse rek si askanu Mbàkke la waroon dellu si à notre grande surprise nag sëñ bi bi mu leen joxe fukki millions yi dañoo génne frais de dossier yi ko ku nekk jël sept cent cinquante mille francs jàpp naa ne nag loolu noonu sax même buñ demoon ba seen conscience di leen may ñu séddoo ko waroon nañoo xool jeunesse su Mbàkke bi souffrance bi ñuy nekkee bi ñuy dundee parce que bëri loo xamante ne sept millions yooyu mënoon na ko fat jàpp naa ne dix millions yooyu bu leen ko sëñ bi la sëñ bi du yëkkati xaalis ne leen dem leen defi si nangam mais ab tegtal la segam sëñ bi da leen tegtal nag ñu tegtal ko seen i poos nag ñun li ñuy ñaan ñu ndaw yu Mbàkke te taxaw askan wi mooy fukki millions yooyu suñ si génnee frais de dossier yi ba pare nañu jëlaat li si des ñu indil ko askanu Mbàkke parce que ki nga xamante ne mooy secrétaire bi di moom il a dit clairement nangu nañ ne dañoo juum te juum gi ñu juum mooy waruñu woon séddoo xaalis bi parce que tey boo demoon si stade ba ne ndaw yu Mbàkke yëpp fa woon di jàppale Baye Fall ci sëñ bi joxe donc li ñuy ñaan rek mooy en tant que ay doomi dëkk bi di taxaw suñu askan xaalis bi nañu ko delloo ci si askanu Mbàkke RFM fexe leerlu ci boobu xaalis jox ko kenn ci club olympique bu Mbàkke Moustapha Dieng waaye mu ne euh, bëgg guuta wax ci moomeem mbir juróom waxtu tegal juróom-ñetti ak RFM kumpa jeex na jëwriñ ju ñu dénk mbay mi Moussa Baldé dalal xel yi ci campagne ak njaayum gerte gi lépp ngi jaar ci yoon macha mu ne ci wàllum capital di njiw mi ñenn ñi jàppoon ne euh, dina ci am ak cooxe daanaka xaaj ba ca lu soxla mu ngi ci euh, kon ministre bi rafetluwul nag ci weneen wàll song yi jëm ci yenn bërëb yi nga xamante ñoo ngi fay dajale ak jënd gerte gi ñeel Chine yi Salif Sow jëwriñ gu ñu dénk wàllu mbay mi weer ginnaaw ba ñu dooree campagne agricole bi mu ngi dalal xel yi Moussa Baldé. tey nii lu ëpp ñaar fukk ak juróom junni ton ci jiw denc nañ ko dèjà li ñu bëgg nag mooy ñu am cinquante mille tonnes. jamono ji collecté nañ ñaari téeméeri junni tonnes yu gerte la xamle waaye lim booba téeméer boo sa jël juróom-ñeent fukk yëpp mu ngi ci loxo exportateurs yi ndaxte ñoom ñooy gën a fay. ñu collecté nag gis nañ ni li ci gën a bëri exportateurs yi ñoo ko jënd loolu moo tax ñu ne dinañ fexe ba ñi nga xam ne dañuy defar diwlin Sénégal ñoom tamit ñu am ci seen wàll ci mois bi di ñëw. li jëm ci song bi ñu song doomu siin yi nekkee fii ci Sénégal di jënd gerte gi te ay saay-saay di ko faral di def gouvernement bi dina ci xar tànk tubéyam ngir ñoom ñu nekk ci kaaraange la xamle. loolu moom li nga xam ne nguur du ko mën a tolérer te polis ak gendarmerie ak justice dinañ def seen liggéey te ku def lu mel noonu yoon dina dal sa kaw. at bi waat coow toppaat na wàllum séddalem njiw gi jëwriñ gi ñu dénk wàllum mbay mi mu ngi tuutal wax yooyu le te jàpp ne liggéey biñ ci door ngir lépp leer dinañ ko wéyale Moussa temps ci affaire um intrant joxe jiw joxe engrais loolu maanaam def nañ ko chanson boo xam ne chaque année ñu génnee ko disque bi bu jeexee ñu xaar ba déwén ñu indiwaat ko président Macky Sall moom li mu bëgg mooy gouvernement bi nañu fexe ba kenn mënatul weddi ne li ñu koy defee jaar na yoon. ngir ñu fexe ba jiw gépp du génn ci réew mi am lu des ba déwén baykat yi mën koo jëfandikoo facture yi nga xamante ni opérateur financier ñoom ñoo ko moom téeméer boo jël ne ñu fay nañ ci juróom-ñeent fukki ak juróom Salif Sow Guédiawaye ñu rajo Futurs Médias Salif ñu wutali ba Kaffrine ci dëkk bii di Ndioum Gént askan wa ñoom du courant du yoon yu baax ci ñoom maire ba yëglu sàkku ci kilifa yi rawatina autorité centrale yi ñu indi ca saafara taxawal fa it ab poste de gendarmerie Oumar Ndiaye commune ba lu ëpp ñaar fukki junniy doomu aadama fay yeewoo njuum gént bëri lool lu mu tumaranke ngir dem fa ay jafe-jafe yu métti ngay jànkonteel ci wàllu gune waa dëkk ba nimse woon xalif général des mourides teew fa ndax ci boobule barab la dëkk waaye yoonu jagadi tax na ba loolu antoogut kàddu yi ko ko yëkkati moo di Omar Dieng nekk maire bu commune bu njuum gént arrondissement Darou Minane bi ñu dëkkee dafa nekk arrondissement boo xam ne xalifa général des mourides moo ko moom tey dañoo am jafe-jafe pour moom mu ñëw seet si ñu Darou Minane Saloum moom dëkk bi euh, président Macky Sall bàyyi xel ne la xalifa général dafa am yéene trop pour di ñëw Daaru Minam Saalum waaye nag dafay am jafe-jafe pour ñëw fi ndax yoon ndax amuñu yoon ndax su jógee Touba ñëw Daaru Minam su bëggee dem Poroxaan day ñëw Njum Gent rek continuer Kaffrine dem Poroxaan boo jógee Njum Gent jaar del bi dem Kaffrine 55 kilomètres la nga jëlee del bi euh, dem Malem euh, euh, mënul romb 20 kilomètres Eh, muy 75 km de goudron loolu nag vraiment buñ ci dimbali woon président Malem mooy département boo xam ne zéro kilomètre la am ci godron bëgg nañ nga bàyyi xel département Malem Odar ñàkkum kaaraange fës na fa lool amul courant naka noonu poste gendarmerie yi teel lool askan wi bu ñuy wax département Malem Odar dafa mel ni njum moo nekk xolu département Malem Odar dafa jege tëm forêt bi nga xam ne lu waay jël mun nga ko fa rawale loolu moo taxoon bi ñu ñun ci bopp commune bi ñu demande euh, ministre de force armée pour doon ko demander benn brigade de gendarmerie fii ci Ndioumguène boo xam ne dafay lëkkaloo euh, ak euh, poste bi nekk Malem mën a sàmm sécurité doomu aadama yi nga xam ne ñoo nekk ci département. Ndioumguène bokk ci commune yi gën a mag ci département bu Malem Hodar moo tax maire ba di sàkk ci nguur gi mu bàyyi leen xel gox ba bëri lool lu mu manqué ci lu koy jëmal ak a jëmale kanam Ndioumguène Omar Ndiaye RFM. Omar jërëjëf euh, ñu des euh, ba tey Kaffrine ak fukk ak ñaari classe euh, yoo xamante ni lakk gi daf ko daal di def ab doom ci école Daaru Ulumi Dana bu Medina bay ay taabal ba ngak yeneen yu fa yàqu lool moo waral kon jaaxlem kilifa yi l'école ba kenn ci ñoom di cab seede Mouhamed Thiam lay wuyoo responsable daara jooju ñu déglu ko Oumar Ndiaye. li fi xew mooy lakk gu doy waar institut bi war na mat ay trente une classe daf ci am benn partie boo xam ne nag moom ay abri provisoire la lu mat plus de douze ba sax ay quinze classes war na koo mat dañoo toog rek gis mu lakk tàkk na ba jeex tàkk nag dara desu fi banc yi fi nekkoon ak table yi yëpp lakk na lum néew néew plus de huit cent élèves yoo xamante ne fi waroon a xëy jàngit fi ñu waroon a jàngee yëpp lakk na loolu daal mooy li nga xam ne moo xew fii xamuñ nag lan moo ko waral waa sapeur pompier itam nag ñëw nañ waaye balaa ñëw xam ngeen ne safara dafa gaaw fa ñuy déparé diggante bi taxul mu sori sax waaye balaa ñëw agsi

Mal Junior maa ngi lay ziar. maa ngi laa delloo ziar la jeex heure bi war na fekk nga nekk général ndax nag ndar-ndar nga Sanaar ak Bango soriwu la. Mm. ndax Demo école Prytanée. të. <laughs> ay cee kon daal yàlla ñu nattu nga dal si fii RFM. <laughs> xew wi ak mbégte gi ñuy xaar macha allah yàlla ko borom bi dogal mooy Sadio Mané. waaw tey de moom tabaar tey dem rek jël ndam li. dem jël ndam li képp la ñuy xaar ci moom ak ci ñi nga xam ñoo jiite kaaf euh, ak ñu joxe ko raaya jooju ci guddi gi. lay nekk nag ca Égypte leen ko amalee ngir joxe kon ballon d'or africain bi moom yegg na démb ca moomulee euh, réew di euh, Égypte nag ba ñu fa yeggee gars yi teer nañ ko ba noppi taral ko otal sax ba mu dëkk nag euh, fa mu ñu fa ñu ko jox cim suite dañ ko daaj léegi duppee suite Sadio maane ngir kon gën koo sargal waaye itam jaajëfal ko ci li mu liggéey ci euh, Afrique ci ñeent at yi nu weesu kenn ci ndawal Futurs Médias yi nekk foofu ca réew ma di euh, Bakary euh, Cissé nekk ci record jot naa jokko ak source de sa job ci suba tey gi ngir nu xool saajo naka la yeewoo ak ci ban état d'esprit la ne lii la jàngat. Sadio état d'esprit bi baax na trop fu mu nekk nii dafa serein xam na fi mu jógee xam na li kay xaar xam na tamit fu mu war a teg tànkam donc cérémonie CAF Awards bi nag daf di loo xamante ni loolu mooy bépp footballeur africain buy ali Eh, nga bokk si ñi nga xamante nañ leen di gën a ràññee te Sadio tey comme yàlla def na ni bokk na sa ñi nga xamante ni eh, ñoom lañ gën a ràññee donc euh, sant yàlla rek la ñu mën a wax. maintenant par rapport à ces chances euh, ñëpp xam nañu ne ay chance am euh, ñu ngi fi tout comme Mohamed Salah ak Riyad Mahrez mi nga xamante ni ñoom la war a jonganteel mais tey jii nii ku xoolu statistique ku Sadio Mané si 2019 bi eh, xel mën na dal mais nag comme on le dit souvent vote la le vote assez secret kenn xamul li nga xamante ni euh, critère vote donc moo tax euh, il garde toujours la tête sur les épaules il est serein il est confiant mais bon mu ngi def kemtalaay kattanam aussi si si terrain bi ñëpp gis nañ ko donc moo tax la bu mu si exee eh, bi fii ba léegi y a pas grand chose euh, de la façon accueil bi ça s'est passé comme nuñ ko nuñ ko nuñ ko ñaanoon bi mu ñëwee si hôtel bi tamit euh, fekk na fi benn accueil bi nga xamante normal na y amul benn tracasserie amul euh, ay protocole yu bari dem nag bu muy reer yi daje na ak ñi nga xamante ni président CAF ak président FIFA ñoom it dañ doon reer donc ñu bokk ñu taxaw si couloir yi ay quelques doon une minute ni nuyonte saafante après kenn ku nekk dem sa yoon donc pour vous dire que effectivement mu ngi xaar euh, li nga xamante ni mooy conférence de presse bu bëccëg bi ak euh, tamit bi nga xamante ni mooy euh, cérémonie CAF Awards cérémonie CAF Awards kon Sadio Mané ñu méngale ko ak euh, salaa ba nga xam ne moo jëloon daaw Ballon d'Or bi fii ci Ndakaaru te ren teewul ca Égypte googee euh, ak Riyad Mahrez itam mooy ñetteel bi joueur bi nu nii mën naa jël fii waaye Salah ak Sadio Mané ñoom ñaar ñoo ca gën a fees ku ci nekk ci ñoom lan nga def ci at mi ñuy euh, jeexal Seydou Nourou Balen ci àndal Mohamed Salah moom am na daanaka ñeent pass yoo xam ne bii moo ci topp mu créé juróom-benn occasion ma ne moom am juróom-benn pass yoo xam ne bii moo ci topp mu créé fukki occasion ak juróom-ñaar am nag loo xam ne lu am solo ngir ñu xool ku ne fan la xarañee muy téeméer boo jël ñaata la ku nekk am ci ay pass yoo xam ne dañ kaa réussir rawatina sax ci yeneen camp yi bu dee moo Mouhamed la li mu réussir ci ay pass mu ngi toll ci téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak juróom yi mu réussir ci yeneen i camp yi mu ngi toll ci téeméer boo jël fukk ak ñaar bu dee nag Sadio Mané la moom réussir na ci ay paas téeméer boo jël juróom-ñetti fukk bu dee nag ci yeneen kan yi la téeméer boo jël ñeent fukk ak juróom-ñaar du nag ñeel statistique yoo xam ne mu nga jëm ci seeni but doomu Égypte bi di Mohamed Salah dugal na fukki but ak Liverpool am fanweeri tiir yoo xam ne amal na ko waaye tamit am ci ay occasion ñaar fukk ak juróom-ñeent Sadio moom dugal fukki but ak benn am na ñaar fukk ak ñaar ci ay occasion kon buñ leen fa méngalee ci téeméer boo jël Sadio Mané la ndax am na juróom Mohamed Salah ak Sadio Mané jël Ligue des champions bi weesu ca juin 2019 ñaari bal ci dara seen diggante ak ñi di waa Tottenham naam Mohamed Salah moo njëkk a dugal waaye nag gannaaw penalti bi nga xam ne Sadio Mané moom moo ko créé Coupe d'Afrique bi weesu foofa ca Égypte nag doomu Bambali bii di Sadio Mané ñàkkoon final bi seen diggante ak ñi di waa Algérie am na ci ñett but ci Coupe d'Afrique boobule Mohamed Salah tamit am ñaari but waaye ca huitième de finale la mujj taxaw moom ak ñi di waa Égypte Riyad Mahrez di doomu Algérie attaquant Manchester City jëloon Coupe d'Afrique bi mujj foofu ci Algérie am na fa ñetti but te Manchester City am na fa juróomi but ak ñett pass yoo xam ne de day passe décisive. Seydou Nourou Ba kon laaj yi ñu wax ni ci ngoonu tey gi bu 18h tegalee fukk ak juróom ci ay minutes maanaam bu noppee xabaar yi français yi dinañu jël antenne bi amal ab émission spéciale ca loola dees ci ànd ak i gan ak i nit ñu tàggat Sadio Mané ci ba muy doon tout tànk ak itam ay reporter fu ne. ak reportage ngir kon ñu mën a dëgtal leen nañ ko defale woon ca ballon d'or tubaab ya hmm. ñu dëgtal leen ballon d'or africain bi ndax bii suñu yëfa inshallah da ngeen di ak ci ji aussi ndax sargal sadio mané gi al àllarba hmm, waaw suba ñu ci toy xeet ah, mu malal aywa pour man RFM mooy rajo bi gën a askan wi RFM rajo bi jaamu seen soxla wàllu chronique culture ñu ak soxna Ana Rocha maa ngi leen di nuyu mbokk yi bursin bu jaxaaw bu bees bi dinañ ko installé juróom-ñetti fan ci weeru février gi ñu dëgmal muy buur ñoxo Baye Diouf moom mbébétam moom moo di euh, gën a dugal ay loxoom ngir euh, sukkali wanu Fatick ñu déglu ko ci micro Aminata Goudiaby. liggéey naa réew mi fanweeri at ak ñett pare ñu ooma fii liñ ma jox nag dama ko téyel nit ñi fi may jëm nit ñi ñoo ma koy wax jaraaf yi fi ne ku ci ne li mu doon papaam def ko nekkoon wala maamam nekk ko wala ay nit óolu ko jox ko loolu moom booleeg yi man nag nekkuma président de la république nekkuma ministre nekkuma gouverneur nekkuma préfet nekkuma sous-préfet mais ñooñu fa seen jàng toll man su ma njàng yegg na foofu naa wax ak ñoom bëgg nañ fépp fu ñu oteeti ñu oñu dialogue national bi ñu def ñun dañ fa war a toog yóbbaale nag baatu siin yëpp loolu moo ñu yëkkiti développement rek moo ñu yëkkiti ak jàmm nu nit ki amee nu nit ki xame bopp

agenda culturel bu Richard Toll ñu fait fa Mamadou Diagne. Adama Anne ñu gën ko xam si tour maanaa nek ndaw bo xamni mi ngi école des beaux arts bu Dakar daal di fay génnee ak BTS si wàllu stylisme ci atum 2013 gannaaw ba mu jotté diplôme bi ki di Adama daal di ñibbisiwaat fi ci Richard Toll ngir jappalé ndaw yi nga xamni ñi ñuy yëngatu si mode lolé waral mu daal di taxawal première édition bu fashion week. Richard Toll aussi dama gis ni dafa am ay jeunes talent kenn xamulé mané pourquoi pas dumay organiser ben événement boo xamante ni dama leen di wo ñom ñëpp au lieu que may organiser mu yem ci man man may wane sama bopp pourquoi pas ñoom aussi ñoom tamit ñu wane seen bopp aussi ñoom ils ont foofu ndax mi nga xam ne ni dina dugal ci loxoom ci tàggatu ndaw yi ñu leen. je projet qui fera euh, la formation. fas yéene naa dugal sama loxo ci tàggatu ndaw tailleur yi nekk si biir Richard-Toll loolu maa ngi koy jaar ci projet boo xam ne nar naa ko teg nekk ay ndaw yoo xam ne laaj na tey ñu daal di jokkaat li nga xam ne mooy seen wàllu xam-xam moo xam jëm ci wàllu euh, recherche yi la wala si wàllu innovation yoo xam ne dafay jëm si li nga xam ni moom la ñuy liggéey. toujours ne pas rester créer innover tout ça. ginnaaw bi première édition bi jaaree si yoon Adama Anne lenn rek la bëgg mooy daal di événement bi si agenda culturel bu Richard Toll. di ko jaajëfal di leen jaajëfal bu baax a baax yéen it ci déglu bi dig daje ëllëg incha ci beneen chronique culture ci RFM.